alors Sangomar Mamba Noir bienvenue au Sénégal pays de la Teranga euh, tu sais copain mmh. Sénégal cap la ki ko sol du ko gis mukk pour nga gis ko foog nga soli ko te yow da ngaa bokk ci ñooñu choix bi nga def nag baax na mooy nga ñibbisi te xam ne fii nga dëkk fële dëkkoo fa da nga demoon rek pour wuti te ñibbisi nag dafa xew yow fii danga fee am wàll rawatina nag état bi ma dégg ne sa papa fi la nekk maman bi la la soxla bàyyi bu nekk dans l'agonie soxla na doomam soxla na doomam déglu ko nga mën kaa doon mën kaa doon Dame xarit mais bari na loo xamul ci man lool li ma la wax tuuti rek nga xam ci man ñëw Sénégal gi gënaluma jàkkaarloog sama baay boobu gënaluma. Euh, Sangomar bari na ay jeunes yu nekk ci dëkk bi. seen bàyyi génn àdduna bu ñu leen mënoon indiwaat dañ leen di indiwaat tarbiyu ko jaamu ko xëy na nag kër goo dugg am na lu ñuy wane ak lu ñuy nëbb soxloo ma sax xam man na nga déggoog sa baay rek ngir bu deewee. mënuma déggoo ak moom. mais essaye. su ma sañoon xam nga baay dafa neex yaay dafa neex. c'est une longue histoire je peux pas je ah, peux pas comprendre dem fa nga déglu ko bu dul dara man maa la ñaan faveur boobu te yaakaar naa ne sa genn wàll yaa moom de mais man beneen genn wàll ki dama ci am wàll comme ni nga amee wàll ci man fais-le pour moi mon frère. dinaa fa dem xëy na buy nooyi nooyam bu mucc dina fekk ma toog jàkkaarloo ak moom te bu boobaa.

bu doon bouillon la. waaye déet waay. naa la wax ban bouillon la. bu doon lu ñu naan la naan la boobu moom damay sàcc wax la ko. ndoxu sew. bu doon lu ñuy naan la. sewoo lay tudd. sew chaque bi. waaye yow xam nga nag mag moom mu may ma koy ci kanam. da ngeen di la may farootee. barke yàlla. ay da ngay takk jabar sénégalais yi. c'est bon suwaay. bii poulet hors poulet du pays la de. man danañ bañ ko ma ay. fii ay poulet du pays la de ñu tudd noob ay noob ak ay dañ leen liggéey de. loolu mënoo see rëcc yow yaa naan noob leen ma. barke yàlla. Sénégal gii. ñoo doon messi ay yooyu ay gongo ay jaljali te si moom. ñoo ko moom loolu ñoo c'est eh, truc eh, c'est truc ak c'est trac yëpp di nga ko xam yow. moo mën dara biiral la sa jabar ci ak mooy. bii de ko man bu ko naatee teg sa doom su ma ñëwee. waaye li ma war wàccu la de. bi du ci ab beneen oto bi. sa jaabatu xam nga tax ma jël ko sama oto laa bàyyi salon ba. foo jëm ak moom. seen kër laa jëm. yow nga yow ni nga fanaanee ak man biig ci guddi kat kati guddi gi yépp kenn nelawul yuuxu heure bu ne man foogoon naa ne boo yeewoo am na leneen looy def lu dul naan sama kër laay dem. eh dama ni wii maa yow maa àndaa ko ngoon dama jox ci seen biir waaye xamoo leen ma sarax daf maa bëgg a lekk balaa mu ma lekk dina wax lu set bu dee dëmm la man mi may nooxóor bi bu dee rab la jinne jaa ngi ni taxaw te foog mu xam ko. Nabouja gis nga jàmm ñeenti lettre kese la gis nga ni mu gàttee noonu noonu la amee solo Nabouja. jigéen jàmm soxla nañ ko ci moom charmante souriante mais du xew rek nga ne ay ci nañ ci dem ba mu jeex jigéen dañuy soxla jigéen joo xamante ne ne fu mu ko fekk mi ngi ree bëgg nit toog ci nit ñi yaatal boppam tarbiwu jëkkëram jom dignité. gis nga sama dignité nanguwuma ko ci mbari mbaa te du doon sarax ka koy commencé bu dee daf may lekk tay la may lekk bu dee daf may bàyyi tay la may bàyyi. doom joo xamul nuñ ko juree de ko laale bant bu gudd sarax ka tey dina dégg daali li ma koy wax dina ko dégg mënoo maa tudd. Nabouja. sa boroom kër la tere naa la ngeen yaa ngi dem loo fa jëlee nag. boo ñëwee fii dama lay dolli. man ragaluma loolu. lu ma ci góobee gar ko te nga dugg balaa waa koñ bi di wàcc Je pense que la cité peut être beaucoup plus belle que qu'on la voit aujourd'hui. Hein C'est quoi ça Je n'aime pas cette photo. Ça détourne li def xamuma ko vous divisez pour mieux régner di ma bëgg a jaxaseeg Baba Der di saltel alalam man Baba Der mu jëlee alal. mais c'est quoi ça lew na ko tom. ah j'ai compris maintenant j'ai compris bon. Madiaga il faut donc que Saint-Louis sache xaw ma xam man may kan duma moromam. Je vais le broyer, je vais le massacrer. C'est un vaurien, c'est un rat, c'est un insecte. dana xam ne man duma moromam et en plus il se permet de défendre Babader. Il ne sait pas qui est Babader parce que Babader sourit chez aujourd'hui, c'est grâce au sang de sa sœur bi mu bokkal ndey ak baay et ça je le sais hein. mais Babader daf ñu pouvoir ëpp ñu alal te nag grand. Mhm. dina la xamal ñaari baat. chez moi amatuma jàmm ndax sama jabar doom bi ma amul ak moom daf ko jaaxal ba nga xam ni dootul nelaw lekkatul naanatul damay tëdd ak moom foog ni sax moo ngi nelaw ma gestu gis ko muy jooy mais je n'ai marre de ça je m'en fiche éperdument ah bon oui parce que ba ngay wut sa alal di am sa xaalis tàggawuloo ma ne m'en parle pas est-ce que c'est clair man la am sama kër dama doy sëkk ma fille est aujourd'hui malade elle est possédée dafa am mel ni ko ami rab et ça me fait peur ça me fou moi et je n'aime pas ça oui ma ci lii la ñu wax ci lii dama ne je donne rendez-vous à Babatère et à Saint-Louis la victoire est proche et qu'aujourd'hui Sangomar est à Dakar ah man maa ko jëlee aéroport bi ci guddi et à l'heure où je te parle il doit être avec son père te baay bi bu ko gisee xol bi defee génn ci biti mais bu xol bi waddee dama koy capter. oui su boobaa dama koy coob mm. dama koy warax oui Bonsoir. Bonsoir. Il est où ci salon bi. damaa yaakaaroon ne mi ngi ci néegam di xaar waxtu deewam. hebdomadaire. Dire que j'ai fait des man ma yaakaaroon na yaa ngi ci diggante dund ak dee di sukuraat alors que tu es là la télé tranquille au calme sa jàmm jeex na tu peux Impossible. Parce que tu me connais pas du tout. Par contre, tu connais très bien ma mère. Ta man maay doom ja nga rayoon ndayam ngir alalu àdduna man maay doom ji nga xam ni yow yaa ko xañ meewu yaayam xañ ko amour maternel ngir lan alalu àdduna boo fi na ma touche surtout pas benn waajur laa am muy ndey amuma bàyyi et regarde-moi te parle parce que xale boobu tey màgg na tekki am kattan et tôt dinaa venger wu sama deewu yaay sa bakkan bi Baba Der sa bakkan bi mu ngi entamé. non mon fils. ne me touche pas Baba Der je reviendrai. yow Samba yu mën ngay xuxal di soppaliku di nekk ay paa yu lax bëgg a jël sama fit bi di ma kar ci mbedd bi naa ma tëkku naa la ba pare ñëw toog fii nekk xale bu ndaw sañ sa nag wax nga dëgg yow xanaa xamu man fu ma nekk maa ngi ànd ak njàpp su ma neexee tari lu lay kaddi kaddi léegi waaye xam nga kan nga ko sekkal lemu biir bi sëtu maam jare ah yor sa nattu nga kenn du ko wax jàpp xale yu góor yi defuñu la dara ñii nga wekki seen benn tànk ñii nga wekki seen benn loxo ñii nga loxo ci seen benn bët waa cër yooyu ngay dajale pour lan la loo koy doy di nga siw de. ma ne nag may siwal demal yow loo ma dara et puis sax yow Nabou Jaa tàppe nga man fi ma toog nii maa ngi sa fit baa ngi tëf tëfi li ngay def nii ay cinéma la. sama fit du toog jël sa loxo bi di ko ko sama biir fit bi di ko loxo loxo loxo du toog waaye man jëmm di sama xel bi ma ànd ak moom xam li ma yàlla may. <laughs> dañ la xuuxal nga daw si yow su ma defee leneen nan ngay def doo tala wax et puis sax lenn laa bëgg xamal gis nga Nabou man du ma sa wujju du ma sa wujju peccor du ma sa geru jëkkër sama natt bi ngay tudd soo doon jigéen ju baax nag may jàppee ni sa sœur. nga jàppale sama nattu couvrir ma taf ma ci sa xol. man bu ma jël xal di dékk sama loxo yi di ko ci teg mu may lakk dofaale wu ma ko boo ko dofaale nag yaa xam. Naboucha ah tu exagères. lu ëpp nag tuur. ah bon. boo rusul Delia nga rus ma man war ngaa sa ñëw ci kër gi di scandale bu dul dara sax nga xool ne maa jur sa jëkkër ki la téye yor la di la sagal maa ko jur. doo doom làq doom. dóor doom làq doom laa fiis man ak yow ba foofu waaw ku xamul buur saay na ñu ne la buur dee na te nga xam nag fi buur mujjee buur dangaa bëgg a xam fu mujjee te nga xam ne lépp dëgg la ni nga juree Delia mii jur ko rayaa noonu la ma juree daf ma jigéen ñi gis nga yow ngi bëgg a ëppal lu ëpp tiita gis nga man maa la ëpp fit ëpp la doole ëpp la ay rab mën naa la dóor ba toog sa kaw lu ëpp tuuru génnal kër gi damay génn génnal kër gi boo may song nit nga fii moo def benn mouvement. ayca moom la yaa ko seree ayca xool yow ak man rek. ayca dama. Eh, ku la bàyyi ku ku mën nga. wuy <laughs> ma topp ma eh. <laughs> ngay def taxaw rek ma wax da ngay def nii. boo defee nii. def nii. i def eh. <laughs>

nga mun ko xuri waaye togg ak yekk rek yorul kër da ngay entraîner bu la nee nii nga ni ko nii ni ko zëcc léeg-léeg nga yëkkati ko ba ca kaw ah. dañ ko ci miir bi ma ne su ma entraîner pour sama bopp la hmm? waaye du kee ma bàyyi ca kër ga suñu tëddee hmm. mu won ma ginnaaw banku nag ba mel ni liir ma nit ma jóg simi sama nuisette ndànk sol sama jin takku ba dëgër won ko ginnaaw man ko ma wokku ma xuri la déedéet du noonu de bu takkoo ba dëgër wan la gannaaw nga tekkee ko ba oyof wëlbati ko waaye danga koy topp ci loolu pour lan lu tax nga koy topp ci loolu fen na nga ko tegul ba pare yow sax lu xew lu xew li daal lu ndaw la mhm. dañu jote mu taxaw naan ma doo fi jur luy doon su doonu dee am doom bi ma am ci premier mariage am bi mooy doon certes sax man ma pour jur hmm. mais am na yenn wax yoo xam ne tamit dafa warul <laughs> pareegoo pour jur bu boobaa yaay per sa jëkkër ji ak ni mu amee alal macha allah waxuma laa benn waxuma laa ñaar xol triple laa bëgg chaque jour nga di ko indil waaye naan pareeguma pour jur gis nga bakkan ak waru dàll ñoo yem kenn xamul nag sax ku ci njëkk faatu naxtaan ko yëy noppam bi fexe mu jox la xaalis bu bari nga dem jënd ci or ndax jigéen oray xaritam mm-hmm. or mooy bànkam mm-hmm. fexe am ak moom ay doom waaye naan pareeguma pour jur lu tax ba pareeguma pour jur ndaw dafay wéy man de lii laa la diggal dégg naa dëgg ci gëm naa ne yow yaay docteuru jéeg pur sang boo pikiir mu ne arlem jóg <laughs> gis nga ñeex mu tàng làmmiñ a koy ëf ba mu sedd mhm. mu guux ko ba mu jeex kii tey naa ko dóor ay marto hmm. xoola ak li fi def nii <laughs> gis nga boobu ko yëma échauffé waat <laughs> xoolal loo mën defar. loo mën defar. waaw eh, eh moom. ah. <laughs> coppi kër ga ngay jaar maam lu ma la jox. yii wóolu naa la. moo ak man rek boo joxe luy lore. dootoo ko defar. <laughs> Mon cher Sangomar, comment vas-tu Ça va bien. Oh, ravi de te revoir. <laughs> C'est de la maison. maison. Alors, dis-moi, voir ton père Moi, je croyais voir une fille en agonie. Mais Kemakis, il est en pleine forme. Et eh, ñëwuma Sénégal pour gis ko mu nekk en pleine forme. su ma ñëwee Sénégal pour gis néewam la c'est pour l'enterrer. maintenant je voudrais comprendre pourquoi ngeen ñëw loo ma ma <laughs> il y a des choses dans la vie que tu ne comprendras jamais su ma la waxee ton papa que sa est mourant wax ma fi nekk yow nekkuloo fi xamuloo li xew et d'ailleurs faut que je te dise ce que le docteur m'a révélé dans le secret de son cabinet nee na sa baay waxuma sa pap sa baay que ses jours sont comptés mën na laaxu tey que mën a laaxu gannaaw ëllëg parce que dafa cardiaque et tu sais comment meurent les cardiaques duñu tàggoo. Babader. si. tu m'inquiètes là yàgg nga ñëw sama kër mosuma la gis nga mel ni lu xew. tu sais je suis cardiaque bu duma kontaan ba mu ëpp baaxul ci man bu duma mer ba mu ëpp baaxul ci man te sama xol bii fi mu nekk mi ngi langa-lang ba li ci des pour mu dagg tuuti la te loolu sa jarbaat moo ko nar dagg sama jarbaat yow je je suis venu chez toi seet si la pour ñu wax ci sama waxu jarbaat sa doom keroog tuuti nga lekk ma nga mer lool léegi moom lan moo ci yoonam ci sa xol yow. xam nga sa jarbaate gi fii ñëw na. quoi. il est au Sénégal. ngi ci dëkk bi. mi ngi ci dëkk bi. alhamdulilah rabbil alamin Oh, que je suis content. Heureusement pour nous. Heureusement pour nous deux, il est venu au bon moment. Au mauvais moment. Maintenant, pour la dernière fois. Oui. Boulma Wakati, ton père. ma Wakati, sa baille. Ah. Parce que, oh, ma papa. Ah, ma baille. Sangomar. Écoute bien ce que je vais te dire. L'éléphant ne ferait son chemin que pour ses petits-enfants. Tu es le futur héritier. Non. J'ai pas besoin de son héritage. soxlawuma xaalisam soxlawuma ay entreprise am Peut-être que tu connais pas mon histoire. Je veux juste le voir mourir. Okay. terrible ce garçon. bokk jataay mënuñu bokk benn il faut le garder <laughs> lépp lu moo doon wax fii keroog ci doomu baaba bi ne am na lu ci luus comportement mu wane na ko tey lépp li ngeen doon wax. maa ngi sama néeg di ko dégg mais lenn laa bëgg mu leer kër gi maa fi femme yow doy nga ma ak sa doom maa hébergé wul keneen Alias, tu as raison, mais c'est parce que tu n'as rien compris. C'est Je regrette beaucoup de ce tour de feu. Il faut le garder.